àdduna di bëgg sàcc dara ci ñoom luñ defar indil leen ko boobu am na ñi ngeen jiital yéen ñu leen di sàcc di rawale jël seen doom yi dellu indil fii di sàcc foofu di indi fii man ma bëgg sàcc li nekk fii indil leen foofu donc loolu lépp nag ba 2019 mooy sama mujjantal ñëw senegal ci élection yi xeex naa ci reyante naa ci lu ne def naa ko pour Sonko falu yàlla defu ko mu jël deuxième ñu def ko troisième négocier ak Idrissa Seck pour mun a def Idrissa Seck le chef de l'opposition ma ne sénégalais yi pareeguñu bàyyil ma delluwaat bu ma delloo ba léegi ci xeex bu métti laa tàmbale ak ki nga xam ne mooy Macky Sall may ma ko dara dara ba dara booloo jeex lépp lu mu yàqule rek sama loxo mi ngi ci troisième mandaa bii sama loxo takk na ci rib nguuram gi nga xam ne dañoo dem ba wili pandew kenn joxatu leen cër sama loxo takk na ci rib xeex bu ma def lépp sama loxo takk na ci rib ngir kan ngir yéen kese yéen kese maanaam tey bu ma toogee fii ñëwuma senegal yéen a ko waral ndax bu ma ko négocier woon ñëw fa te bu ma fa ñëwoon it man gëm naa ni dañ ma bokk naa ci ñi ñu war a rey te ndax dañ may rey nii rey doomu aadama bu ma fa fekkoon dañ may rey par force du ma dugg sax kaso dañ may rey parce que xam naa ni ni ma mel ni ma dëgëree bopp am na yoo xam ne mënuma ko seetaan nit di ko teg sénégalais di jël fetal di ko tiimale ci ay xale yu ndaw ñu xool ñi lay xool nga leen di xool nga leen tëll bal fetal ñu daanu nga dugg ci biir dem toog continuer sa dund dem di dippe ko dipp say jeeg ak say caga donc lépp lu ma dal yéen la euh, lenn rek laa leen di ñaan te lépp nag amul xeetu xewal buñ ma proposé wul Macky Sall m'a proposé des centaines et des centaines de million maa ngi koy wax fii Marème fay Sall m'a proposé des centaines des centaines de million jëluma amul ku nekk ci état bi ku tàllalu loxo ne mag moo laa kaay nga jàppale ñu loo bëgg ci àdduna ñu jox la musuma ci ànd ak kenn musuma wàcc ci sama combat nekk ci gëm ko mooy combat de souveraineté nationale ba ci Amadou Ba bi mooy bokk na ci ma mujjee woo bu ñu commencé war a dugg ci campagne bi ba muy commencé di jënd ay journaliste di jënd ay euh, tiktokeur boobu gars yi neewoon nañ ko fexeel dugalante dugalanteeg Mola Morgan fexeel noo mën a def pour mu jege la il m'a rapproché deux fois m'a proposé des centaines des centaines de million que j'ai refusé catégoriquement ñaari yoon woon na ma ko ma lànk ba tëdd ci suuf et pourtant la ma Macky Sall doon proposé la ma Marème Faye doon proposé ba ci Amadou Ba bii doon ma ko proposé bu ma ko jëloon heure bi sama morom yépp jël nañ ko juutu joxe seen taat yi man ba léegi maa ngi leen di tenir tête di xeex ak ñoom di jàmmaarloo ñoom parce que damaa gëm ni man ak yéen dafa am lu ñu séq te waruma leen trahir kon am na benn contrat bu ñu lié man ak yéen te contrat boobu trahison waru ci dox parce que man waruma leen gën ci dara munuma di leen xeexal lu bëri ñëw ci diggante bi di ay opportunité ma waroon ko jël jëluma ko waaye yemul foofu ma jël sama bakkan bi tayle tey la di xeex ak nguur nguur gu am doole nguur gu am possibilité nguur bu am pouvoir ma man ma localiser sama bopp ne leen maa ngi Canada Montréal kon kooku dawul coow nit yi mun nañ am fu ñu nekk kenn du leen gis am na ay live yoo xam ne kenn xamul fu ñu ne doo leen gis man ma délocaliser sama bopp localiser sama bopp wax leen ni maa ngi fii kon kooku dawul coow parce que alxuraanul karim Sénégal jaral na ma dee ma ñàkk sama nday bu desoon lu dul dee benn pour Sénégal sauvé wu man ma ne ñëpp nañ toog man ma joxe sama bopp. man ma joxe sama bopp doomu aadama dañ ma eh, non mola wutil jabar wutil doom man leen doo weesuwul dafa am lu may xeex tant que jotu leen ci loolu soxlawu ma jabar soxlawu ma doom nañ xaar loolu yëfu àdduna la nañ xaar. tant que yéen jotu leen seen souveraineté national tant que yéen leen seen libération totale tant que yéen jotu leen xeeñaayu maanaam caf kay dund caf kay liberté caf kay bonne gouvernance soxlawuma man jomb naa sax am jabar bu may raaye ko doom nekk di taxawaalu te yéen di génn ci mbedd mi di jooy ñu may tàllal loxo daan ma ngir yàlla dimbale ma sarax ma cent franc sarax ma deux cent <laughs> j'ai honte de ça wala ma toog di lekk am ay njaboot yuy jooy wala ay xale ay liir yu yuuxu ngay laajte ñu ne leen kii lekkut dégg naa benn histoire Mouhamed sallallahu alayhi wa dafa amoon benn borom kenn ku mu doon àndal ci ay combattant am ji xeexi ñu rey ko ci combat yi ñu ko rey ci combat yi njaboot gi fande jabarame ki doomam ñëpp fande Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam génn di doxantu bu mu doxantoo ba dégg ay xale yu yuuxu di jooy mu ñëw dugg si jege laaj soxna si nuyu soxna si ne ko waaw looy jooy xale yi lu ñuy jooy mu ne xale yi day seen papa lañu yóbboon guerre boobu xamewul Mouhamed sallallahu alayhi wasallam ne ko seen papa dañu yóbboon guerre Mouhamed moo leen yóbboon geer ñu rey fa seen papa seen papa lu mu doon am kus néew di leen ko jox yoratul kenn yoratul xale yi di xiif boobu Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam woote ne leen à partir d'aujourd'hui njaboot gi buñ mus a xiif ay jirim lañ te ci xeex la seen baay dee donc njaboot gi bëggatuma leen dégg ay xale yu jooy depuis boobu ñi nga xam ni lay àndal di toppatoo xale yooyu di leen toppatoo ba xale yooyu jooyatuñu donc pour wane leen ni suñu xeex dafa am fu ñu toll léegi nag mbirum gor la rek gor dey sorul soru soriwul wax ju bari soriwul wax ju bari waaye Omar la Omar Omar Ben la exactement Omar benn Khattab la histoire bi donc soriwul wax ju bari mën a yéen dañam benn contrat contrat wu dëgg la contrat wu ngor la contrat bi nag yéen a ma ci ëpp intérêt yéen ñii rawatina ñu nekk